gëmuñu ko parce que gëm gën nañ dañaa wax yow yeewu askan bi gëmuloo fi sénégalais effectivement dañu indi ay changement indi ay coppite yu bees assemblée bi ñu fi amoon bu fi amoon bu benn wii wii la assemblée boo xamante lu ñu mën a ñu voté amuñu benn amuñu benn importance loolu lañ jaay sénégalais yi ba sénégalais yu bëri peut-être am envie aussi de changer un peu wala am envie aussi de gën a dundal suñu démocratie beaucoup de sénégalais qui voté leen te man même malgré ça xam nga ne aussi y a plus de 500000 voix d'écart entre Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi 500000 voix d'écart. d'accord mais ça ne vous garantit pas une victoire bu ñu ñëwee assemblée nationale xam nga xaaral rek même na sekk aussi ñëw nañ assemblée nationale Sénégalais gis nañ seen taxawaay assemblée nationale. on a se c'est c'est c'est la législature du désordre la législature boo xamante bi nga xamante ne gis nañ fi loo xam lu musul Sénégal musul yaakaar. ci ci taxawaay député loolu lañ loolu lañ fi gis te en plus sur sur le gâteau tey jii assemblée nationale bi nu mu composé woon nii on se compte que ñoom nu ñu gëm la woon Sénégal ñun dañuy àndandoo yeewu askan wi askan wi moo ñu tax a jóg gis nañ tout ça c'est c'est c'est faux parce que bu seen intérêt yi taxawee tas nañu loolu aussi fokk nga defoo sa baaraam may mun a loolu foog nga def ci jàngat parce que est-ce que des hommes politiques am nañ droit tromper sénégalais am nañ droit jaay sénégalais loo xamante ne gëmuñu ko